Adama sama yaay sonn na torop te amuñu kuñ fi dimbali lu ñu jëndee ordonnance bi sax amuñu ko ada melinyu dulu kan aja Len lagi agis Hal mada usia di semen di jahitnya Budia ben semil farale sok punya jen lay ordinas bi Budia melinyu di saya ala rekta Yai ya, Mangi tau dem semakin di jahitnya udeng Yai bulan deh ya. mai di sawe ara mana mo jappal awa bu ba ara ma aw am fikken yaay papa yaay lepp ara mana mo tiyal awa de ya, ya, ya li yaay waaw ah, jugal dem ci biir fii daa seet jugal

te dañuy kut bopp yi yaa ngi dégg kut sa tànk yi duñ fa ba sax wee sacrifice bi la dégg jox ma ndew ma am li ma ko expliqué seetente allo ndew laissez palanquer de batari waa déggaan sama saa ndey wax naa ko asfan yu néew dinaa coppati ab dara yónnee ko deg ba ñu tàkk nga yaa ngi dégg man damaa bëgg xoolaan yow damaa bëgg nga mét sama bokkeel man tout dans la guerre c'est gala c'est frigo yaa ngi dégg damaa bëgg nga téye sama sama bokkeel amee fukkatil sama xol bi nee ko coppet teg ko sa loxo maîtriser ko daala amee yaa ngi dégg saam ko ni ñuy saamee géej ak yéen. goli mala gel ki mala bok sotem sai sama longti ya sama vision ya sama ya ya ya sama bono idenga tena dama wara dem si mondial de théâtre denga mondial mondial de théâtre dede lolu adna bi xolam adna bi dek bi ma koy fet da ngay bayyi loxo mbogel gi mbogel gi la loxo bi waay mais ok, euh, te pour qui et puis tu oses de rester dans le d'argent, de porte garage pour mu non nous, hein? mais d'or dans votre côté ci ëtt bi muy pourquoi dégage

m'énerve, ben ce gars-là. Ben Il m'énerve. Comment tu vas Bien. Ça va Bien. Mais tu es où là Regarde, regarde. Tu es tout le temps téléphone et caché dans l'oreille. Hein Qu'est-ce que tu faisais Regarde ça. Migi Bay Buntu, garage Moubeku. Hein Mais dormi, terrain et Tibi Maïma, je t'ai dit que j'avais un coup de fil à passer. Ok, ok ok. maintenant je fàtte faire li 300 000 francs CFA. Quoi encore. 300 000 de francs CFA on naa la damay changer ma garde-robe damay jëndaat beneen cheveux aussi perruque le tout ça te coûte 300 000 francs CFA. ok j'avais pas oublié. mais tu sais je me suis dit qu'en retour je vais passer ah je vais passer pour te donner je vais te donner y a pas de malheureusement qui tienne légui, là, qu'on ko soxla tienne Légui. 300 000 francs tu sais que j'ai horreur de faire le rang légui, là sur le 300 000 liquidité. Ok. ngi je te donne 350 000. d'accord. Hein? Oui mais il ne faut pas me demander plus rien jusqu'à samedi. mon problème aujourd'hui tey la lan. tey le vendredi. ok samedi prochain. mon benn problème. alors loo noir. rien non si am na loo noir. non waxal. je parle sur le métier non si arrête un peu am na loo noir, wax eh ben, c'est tout. yaay toog. Eh, eh, eh, fooy toog. bébé dimbale ma fan ngay toog. yow fa nga jógee xanaa bàyyi woo fay nit. xoolal li nga sol. yow yaa ngi dimbale ma yow yaa ngi xeet. yow sama salon bi yëpp yàq nga ko. ana sa ndey. ana sa baay. yow laay waxal doomu walaakaane bi nga doon yow doo dimbale ma de yow. yow doo rus sa yow amoon jom sama salon bi doo fa duggati. lu ma la waxoon. si tu as quelque chose à dire à ton oncle qui me dis. bébé toi aussi eh, oh. ah tu as quelque chose à dire à <coughs> Fais que ko jardin bah, bah, <laughs> tu sais ta tante elle est un peu folle hein n'importe quoi hein la la prochaine fois bu devez appeler ça ah li nga soxla nga wax ko mu wax ma ko sa tante xaaj la da lay toroxal et puis dafay tekki xaj bi te xaj bi bu tekkee ko da lay nijaay sama yaay moom feebar ba sonn te fi may wax ak yow buñ ma daboon ne ma sa yaay faatu na duma ko weddi ordonnance baa ngi ni nijaay amuñu luñ ko jëndee. francs ok d'accord tu sais qu'est-ce qu'on va faire tu vas aller jusqu'à demain tu vas venir. Hein? Demain, demal ba ben suba nga ñëw oh. xanaa déggoo lii ma la wax sa là 350 000 pour mon et et garde de robe hein? Hein? maintenant tu es rien avec moi Demain, ba suba ben. Demain, Demain, xaj bi dalay lekk hein <laughs> Bébé, tu sais, j'aime pas la façon que tu parles avec ma nièce. ça me fait. man j'ai rien à te dire aw ma lu ma lay wax. parce que man genre espèce su ñu ñu wu dara yi waxoon na eh waxoon na la buñ ma fekkati sama bir salon yow sax yaboo ma tu n'as rien fait ça ça. mais yàqu sa gars. lan la waxon ci doomu yi ñu Tu dara yi la waxon ñom sar yow lan moy sa ci kër gi lan tax mu dugg ba sama salon ma fi il est gros ce gars que ça soit la première et la dernière fois lii ko tolérer fenn Génn ci biti c'est ça ah, la il m'énerve aw ma lu may wax ak yow may lijjante ak yow si bien hein, hein? tu sais les femmes hein au départ elles sont comme le café au départ ça excite mais après ça énerve sama seex yàlla bi fan nga nekk ci lan nga nekk cey bii wéetaay am na yow dong maag yow dong ñu des tey jii man dong maa chị seex la yaay ndeyam yaay baayam sàmmal ma awa sàmmal ma awa sàmmal ma awa adama awa yaa mën a war war na gaañu fi nekkoon ba kenn desati fii Come on, come on. What's that?